wutee gi ci am wax na bañ koo mbee mbég la yi nga xam ne moo ci xew ak xawteef yi ci xew ak jigéen ñi yaaka seen yaakaar tas ñu xam ne oh, yonent bi ëmb nañ ko te ëmb te ñu tëddu ñoom bañ génn àddina muy toll ak ñaar jigéen sallallahu alayhi wa sallam wax na lalu buur yi daanu ak mbooleem xew-xew yi ci xew ba ni baayam gaañoo gannaaw ñaari weer ci ëmb ga loolu yëpp jàngale na ko ak bi nga xamee ne waa ñëw na daal ba ni malaaka yi di ndokkalee aminatu wax ko ne ko bu juddoo tuddee ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te na nga ko musul ci yàlla nag waaw ci ay yaji xañaan ndax ko am lu baax ku ne rek ñu xañaanee la loolu yàlla ko dogal mu ne waqat dabba wala boog waqat na taxa tudd na kullu ma dabba lépp loo xam ne jukkoon na li Quraysh ñal Quraysh bi xam li xeyri ibadillahi ci ëmb ci jaamu yàlla yi kullim ñoom ba nga xamee ne am nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp daaba goo xam ne Quraysh am na ko keroog daaba ga wax na ca kaw ne am nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleen daaba yi bëgg nañ ne yaa guddi tey gii ci lañ amu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii lépp moom ci ëmb gi la ko nettali fax darat naat na alaadu suuf si wala jaaru garabee xat xamalat xenu nañ meññet ba nga xamee ne ëmb nañu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suuf si yëpp dafa naat gàncaxam waaw garab waaw yëpp meññi sallallahu alayhi wa fa summee ñu tuddee alaamu adma amal fati atam mbégte ma war af na ak xéwal gu mat ga keroog at moomu ñëw mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam atam gu mat lañ ko tuddee moo tax fa summee tuddee amal fati atam ubbeeku war af na ak xéwal gu waaw mat ga rek laa wax de wali nisaa yi na wala wagu bu asina digal na arrahmaanu yàlla dégg nga waaw lil nisaa yi jigéen ña am la zukurin am bu ay góor za kanaama boobu la at ikraaman ngir teral li muxtaramin ñee kuñ respecté ka at moomu nga xam ne ci lañ amu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa digal jigéen ñëpp ne bu kenn bu jigéen yéen ñëpp amu leen ay góor ndax at mi atam góor na ndax si la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di judd waaw te moom góor la moo tax kenn du am jigéen at moomu jigéen ñëpp waaw góor lañ ëmb ngir teree ko yonent bi sallallahu alayhi wa ma ngay nettali nag wutee gi nga xam ne nii am na waaw ci weer yiñ ëmb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne juróom benn weer lañ ko ëmb ñu ne juróom weer lañ ko ëmb ñu ne juróom ñetti weer lañ ko ëmb ñu ne juróom ñeenti weer lañ ko looloo gën a lëng ñu fukki weer lañ ko ëmb moom lay nag nettali waaw di ci defaale ak tawriya ne jabaa dajale ne alhuda njub moom yonent bi su ba woon topp ndam wal baa ak taar adaban ak teggin lu ko dajale hamdun ëmb bi xayri wala ci gën ci mbindee fi al muxtaari kañ tànn zil qadami zil qadami kay borom ak jiitu rek laa wax de mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dajale na mbir yu kawe yi mooy lan njub ëmb gi dajale na njub dajale na ndam dajale na taar dajale na teggin yonent boobu nga xam ne moo jiitu ñëpp ëmbam gi dajale na yooyu rek la wax de jabaa nag jiim gi ñett la waaw baa ñaar dégg nga loolooy lan juróom alif benn muy juróom benn mu ngi ñu juróom benn weer lañ ko ëmb am na ñu wax loolu alhuda haa juróom la daal ñeent dégg nga alif benn muy fukk am na ñu ne fukki weer lañ ëmb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suma ba wan topp ndam lam ci na moom mooy juróom-ñeenti weer ndax waaw juróom benn la baa ñaar muy juróom-ñett alif benn muy juróom-ñeent de ko koy wax ji gën a wér nag ñu ne baaxa lañ ko mu lima baaxa haa juróom la ba ñaar muy juróom-ñaar dégg nga alif benn muy juróom-ñett ñooñu ne juróom-ñetti weer lañ ko waa adaban lim adab mooy juróom ñaari weer ndax daal ñeent la baa ñaar la muy juróom benn alif benn muy juróom ñaar kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne juróom benn weer lañ ko am ñu ne juróom-ñaar juróom-benn nag mooy limab jaba juróom-ñaar mooy limab adab am na ñu ne juróom-ñetti weer mooy limab baha am na ñu ne juróom-ñeenti weer mooy limab bawu am na ñu ne fukki weer mooy limab huda waaye juróom-ñeenti weer moo gën a wér ci lañ amu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innal bashaayira naka mbégte mbégle ya mazaala dañu tubashiruha di ko bégle dégg nga hatta anaara ba mu leeral na waaye chaami wàlli chaam li taxe mi ñeel ko nekk makka kerek ba nga ba nga xamee ne ñi ngay jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wala boo keroog ba ñëmbee yonent bi nag bégle yaa ngi jug rek di bégle na yonent bi ëmb nañ ko yonentu ëmb nañ ko sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne nii moo yonentu mujj ak jamono bala ëpp na yonentu mu ak jamono mooy ki nga xam ne nii ci leeram ci la lépp xamee waaw mooy ki nga xam ne nii waaw bu la neexee neel moom rek am rek laa wax de sallallahu alayhi wa moo tax ba muy waaj a ñëw ci alamul wujud gii ñëpp di ko bégle waaw ndax seen waajaa ngi ñëw namoon nañ ko lool waaw waaye ma ngi ci alam wala waaw ma ngi ci àqatu Muhammad ya mënu nekk ak nit ña waaye ba muy ñëw nag pour nekk ak nit ña war a indi leer ya waaw war a génne lëndëm nit ñi war a jokkoo yàlla dellu seen cosaan bañ ko ëmbee lañ ko commencé di ko bégle di ko bégle di bégle ba ba muy ñëwee juddu leeral saam te fekk ma nga màkka keroog ba mu juddoo yow mi nekk màkk yaa ngi seen palais saami rek laa wax de sallallahu alayhi wa leer gu matale àddina yëpp leeroon nag وتلو المستري اتفنك بدو مستري اقترنا نيوم لن كلو نني برام كوم خامي نجوم خامنا مستري نانا بدو بو بارك لا وا يونت بو ميو ديرك كلا مستري فين وا موم جودوم دي يالا داف تي داف خرباخ سي مبولم كايت نيت ني ييغا خامني لا ني داف لو حرام لا صاح لو رافل لا ني غيس جيروك يونت بي صلى الله عليه وسلم xam ngeen ne xel mun na joom moom waaw lu dul li lay jàngal kaaba xibla gaag yooyu kooku xaraam na waaye teewut ñoom waa xel mun na joom gisuñ ci yonent lu may lu mat sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg mu mat ci lépp de yaa saxda muqtabisin woo naa texeb aju jumu min képp kuy jël ci leer yonentu boobu waaw texe ñeel na ko <clears throat> léegi nag mu ngay wax ju duga mu ne la maataa ba mu dikkalee aminatu allaji li nga xam ne yaati dana dikkee annisaa jigéen ña dafa am teggin waxut ba aminatu di matu daf ne lay dikkal jigéen ñi ba mu dikkalee aminatu fekk mat ma la ci na mu raat gis na janaaha tayrin mbaggi picc yoo xam ne na faa dàq na maa xaala la ko tiital min gisu min ci ay mbir yu màgg ba mu demee ba war a matu nag dégg nga dafa gis daal ay picc yu ñëw rek ëf ko seen mbagg ma lépp loo xam ne nii méthode la daal di ko sori yëgut benn méthode ci méthode yi jigéen ñi yëg bu ñuy wasin waaw wacam matata mu ndokkeel ko annisaawu jigéen ña azahiraatu yéla way weex sanan ci taar tasmitaha comme nu mu ko ndokkalee al malawu mbooloo ma daa laa bay aji kawe zawul karami yee borom tedd ni nga xamee ne ca ëmbam ga weer wu nekk kenn ci yonent yi ñëw na di ko bigal na ko yaa xam mu yonentu mu jëg jamono bam mu demee bay waaji wasin nag jigéen ñu taaru ñëw nañ di ko ndokkeel nan ko aminatu ñu ngi lay ndokkeel yaa ngi waaji wasin nag waaw yonantu bi nga xam ne nii mooy yonantu mu jeg jamono moom lay wax noonu dana wax jigéen ñooñu ñan ak ñan lañ wa maa raat la gis na ko sittu naa suñ sang ba sayidatu léeg-léeg ñu dagg taaga ne sittu waaw sittu nisaa yi fekk mooy sayidatu nisaa yi lañ ci namu wa maa raat la gis na ko sittu naa suñ sang ba azahraaw ki aji weex dégg nga ki aji taaru amina tun ta mooy amina mi ne naa jaay bi ci kimtaan fala tarum bul sàkku attan di de lim ko keroog ba nga xamee ne Aminatu mu ngi waaj jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim gis ci kimtaan kenn mënu koo lim rek laa wax de luñ la jàngalee xam na am xamal na am na lu des waqat la gis na niswatan ay jigéen mu laaj leen yeneen ñan xat xul nañu ne ko asiyatu ñun dañu man ma asiyatu bintu mazahim jawaru firawna wa bintu imrana ak mariama doomi imrana tii ka ñii alxawru ñu imrani laa takimi bul jàq ba mu demee ba waaji wasi yonent bi gis ay jigéen ñëw mu laaj ci ñen ñu ne ko Asiya bintu Mazahib ak Mariama doomi Imran waaw yaay yonent Yàlla mu ne ko ñii nag ngay gis ñoom ay xóoru ay nañ aljana lañ jugee bul jàq waaw sallallahu alayhi wa sallam kasa nak noonu alxamaamu niir wa alladi bi nga xam ne maa fii la nekk na ca fii ma ngi cee minal xalaay bi ci kimtaan kimtaan yi ca nekk daal ma ngi ca kenn xamut waaw alxuru yi kimtaan yi aji weex kas fa sirri wuñ ñi mbóot ma laata sumi bul ko sàkkum ba nga xamee ne aminatu wasin na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dafa xool rek gis aw niir wu ñëw waaw ma nga dégg nag waaw ay fas yu ngeel waaw dégg nga ak ay mbagg waaw yu yëngatu rek de ak ay kàddu góor yi wax fekk malaaka yi lañ ñu naan jël leen ko wërale ko waaw asamaan war leen ko suuf si war leen ko géej yi ndax ñoom ñu barkeelu ci noonu la ñu am bee yonent bi rek daal di yóbbu waaw si sens ñeen di laat ko yaayam mu ne niir woowu xam bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ca nekk ci biir kiimaan bu bu bu dégg nga bul ko jéem a xam waaw loolu lépp xew na ci keroog ba Aminatu ci jure yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raat gis na salaasata alaami ñetti drapeau xadin tasabar samku na fii kaabatin ca kaaba ga ba yonent ji doo ñetti drapeau sampum muy lislaam liimaan ihsaan ma waa bi duñ ko bëgg a déggam waaye mooy lislaam ak tariqa ak fayda rek de dégg nga ma ne bu la neexee nga gën koo xóotal laa sallallahu alayhi wa sallam ñetti drapeau yooyu ba yonent bi juddoo waree na la yonent bi dafay seetlu ko ci ñetti xaaj xadin tasa ba samp na fii kaabatin ca kaaba ga benn ba mooy mashriqin penku waaw benn ba maghribin sa sowu la ittasi mandarga loolu benn ba nag mu ngi jug kocc jëm ca kaaba ga rek jëm ci asamaan ñetti drapeau ca kaaba ga benn baa ngi samp ci côté penku benn bi ca côté sowu benn bi jëm jëm kaw waa ñetti drapeau yooyu mu ngi juñ ñetti maqaama diine lislaam yi rek laa wax de alhamdulilah mañ dëggalee ñu lépp ñun tallaahi maa ngi gën ci yàlla maa xiltu maa xiftu ma tax nii san ak teeñu lool ak xasami sama ngëñ mu ne maa ngi gëñ te gëñ googu kenn du ma ci weddi mm-hmm. wax na dëgg kenn du ko weddi mais charwaaw ku mel ni yonent bi ما دم هو مسكو تاب راس دافو سلفي من تو من كاي ورس دي ورس مرافتيني يونتو بي صلى الله عليه وسلم بن سلف مسكو امبو مانام دوم جوماتيني يونتو يالله محمد صلى الله عليه وسلم جيجين مسكو امبو رك لا خدي نانكو نيو يونتو داف من وقت اتا ديكلا قوم عانتم يا الشفاء وشفاء شافي دا جي سافر صدور من دن ني nga xamne mu di homay mu ni homay nañ len atawfiq sans fi qadami ci ñeeku bi jur nañ ko nag shifaaw moo ko doon for mhm. kimtaan yem gis nettali ko nit ña képp ko am sans xol dana ci sedd ah nga ne ko lu shifaaw gis mu ne way atta ba ti bi juddoo shifaaw ne na kaana nekk na masruuran waa di kuñ dagg dagg ji mbax ba ba mu juddoo fekk nañu dagg nañ ji mbax ba yu xaalu wax nañ ne wa makhuulan kuñ tusngel la ña ko tusngel mu rafet lool كما كان كم نكيم مطونا بيرن قرف بلا عالم من شرور المترك ينون تبم جدو فكنا دقنا الجنبخ با تسنجل كو تسنجل يرفت واو قرف كو تانو تك بن متت لب لو قمنا نكو رفال خالي مون بمي جدو جدو عالم نكو واخر جاتو جنن نكو رنما زيفا مواجسات ما بي نكو تي قصر بن تيرم كرك بيون تي الله محمد صلى الله عليه وسلم جدو لا يتقق لي جدو مم تقول كو دفست وچ واو من نكو نسنج واو لم لا لتخبدو set wamin tii bii te ci teem nga ak tasiru lañ laabale li sutu mi ñeel cosaan yi mbooleem ponkal yi ci yonent bi lañ leen laabalee moo tax moom mënu juddu tilim sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko ba mu juddoonum def si faaw ne yu mii ma ngay junju asababata baaraamu sànneekaay ba mel ni mag moo xam yàlla meq ba dandaa ji ngëpp nag asaabion wa yeneen baaraam ya mislal musabbihi comme ponkal muy sàbbaal yar nu ma ngay xool anool wa ca kaw zahima min di borom ak yitte yonent dafa judd rek jël bët ba teg ci asamaan ndax moom mbiram ci kaw la jëm tallal baaraam ba nag ba baaraamu sànnee kaay ba waa banque yeneen baaraam ya nga ne ko ba mu tallalee baaraam ba lu mu wax mu El Hadj El Hadj Malick ne la xaala wax na hiina atta ba mu dikkee rabbin maa ngi tudd màggaay ak borom rafiyan ba ji yëkkati ko nee nañ loolu la wax waxi am ñu ne déedéet sabaxa sabbaan la fii takbiiri ci kabba ci màggal azami kay borom ak màgg nee nañ allah akbar la wax maanaam dafa judd yëkkati baaraam ba ne allahu akbar ñu ne daf laa ne woon a jëlaala rabbin rafiin mm-hmm. ba mu juddoo noonu la doon def alaaji maalik nag mu ngay tagg jëmm jooju nga xam ne dikkal nañu mm-hmm. waaw di tagg bët ya dégg nga di tagg ba dégg nga nopp yaa waaw di tagg bopp ba waaw tagg dënn ba ak xol ba waaw ak yëg-yëg ba mu ne wara soo boppam yonent mi sallallahu alayhi wa sallam a dikk na min yum nin ci barke boo bëggee xam bopp ba neel jëmmi barke la yàlla jël def ko muy boppu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min ibarin waaw ci xalam lañ bindee usunaaw ñaari nopp ya ñaari nopp ya dafay dégg waar waaw di jariñu قلم موي ريزلتان وخلاص نياري نوب يونتي بي قلم لا يالا جيل داف كو موي نياري نوب يا اينا يا حبيب الله نياري بت يونتي يالا با من رتمين مو جيجي تي كارسا موتا كو بري وون كارسا نانا كو بت يونتي بي تولين كو بيندي الحاج ما نانا تي كارسا رك لا صلى الله عليه وسلم اكا خم يونتي بي واو صدرون دن وقلب اقول فؤاد اك يك يك حبيب نياري يونتي بي دن با من الاخلاصي مو جيجي تي سلال dënn bi sellal lañ jël rek daf ko muy dënn yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rahmat ak yërmaane arrosement bu màgg ba moom lañ jël muy xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa min rahamin ak si ñeewenti mooy yëg-yëgu bi mooy fu wa sallam waxal ne min a zikri ci tudd yàlla wa tasbih ak sàbbaal su mari dan topp gërëm yàlla ci leen jëlee lamañam lamañam ba tudd yàlla la yàlla jël mooy lamañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam shafataaw ñaari tuñam ya sàbbaal yàlla la yàlla jël ñu yonent bi yàlla yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alwaju kanam ga ngër mande la ngër mande la yàlla jël waaw mooñ ko mooy kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne faxtanim nag màngal koom ndax lii kenn du la ko wax man rek maa la ko mën a wax wariqu lorwaal mooy taflidiya caaro ak karaw ga alaswa gi gën a sell fa min asali jannati lorwa mu ngi jugee ci lemi aljana lemi aljana la yàlla jël rek def ko muy taflit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam karaw bu sell ga nag wa nabti mu nga jógee si gàncaxi aljana gàncaxi aljana la yàlla jël def ko muy karaw yonantu moo tax moo gën a rafet karaw sallallahu alayhi wa amal kaf waaye tënk ba min mu nga jógee ci teranga maanaam teranga la yàlla jël la def ko muy tënk bi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga ne boppam yonantu bi kooku barke la noppi yonantu bi kooku xalam la ñaari bët yonantu bi kersa la dundam yonantu bi sellal la xolam yonantu bi yërmande la jigi-jigi yonantu bi ñeewanti la làmmañ yonantu bi tudd yàlla la tuñu yonantu bi sàbbaal yàlla la kanam yonantu gërëm yàlla waaw taflitu yonent bi waaw lemi aljana la mhm. karaw yonent bi gàncax aljana loxo bi yonent bi teraanga la mhm. sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nag juddu nag mel ni doomu aadama fekk ay jikko yu kawe rek la waaw ma ngay gàndal ci ñi nga xam ne nii ñoo jaar ñoo jigéen ñi nga xam ne ci ñoom la yonent bi jaar ndax ku judd rek jaar nga ci jigéen mu ne am nun mhm. yaayam kóllute la ndax Aminatu la tudd di wane ne kuñ kuñ hóolu moo nekk nii kaka kako dégg nga for kooku mooy chefaawoon kon yonentu kuy saafara xol yi la sallallahu alayhi wa sallam ki ko njëkk nampal ki ko nampal gannaaw yaayam mooy suway bëtu kon yonentu sawaabun mbiram tiyaabala waaw ku ka doon yar nag mooy ummu ayman mu ne suma may mënatum kon topp barke yonentu mbiram barke la ndax ummu ayman ba mu jaaree ci moom rek moo lay waral barke la waaw mu jàllal bi ku na dem ci alimatu mu namp mu ne xel mun kooku lewet la loolu war na ki ko nampal noonu kii mbiram waaw mbir ku lewet a ngi nii giir gi xalimatu bokk mooy sa euh, sandiya mu ne wa sandun ko texee ca topp di wane ne mbiram texe la kon fi yonantu jaar rek wan na la kii mooy kan yaayam mu ngi junj ko lu téem waaw shifaaw mi ko for mu ngi junj ne koy saafara xol yaa ngi su ba mi ko nampal jaamu abu lahab la woon waaw mu ngi junj ne mbiram yool la waaw ayman mi ko doon yar mu ngi juñu ne waaw barke la xalimatu mi ko nampal mu ngi juñu ne kii ku lewet la sa saxadir gëm bokkoon mu ngi juñu ne kii mbiram taxalan moo tax mu ne am nun kóolutee wa shifaun ak saafara sawaabun ak yool su ma may mënatun topp barke xel mun lewet wa saadun ak texee li badri ñeel na weer na yérin bi aji leeral ama min bi aji matare mo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laaj Malick nag xol yi sedd na xanaa doy na mu ne mukk duma noppalu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglu leen ma rek ma waxal leen bu leen doyal ndax man doyalu ma nga ne ko waxal ndax kenn du doyal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waqat tawaala toppalante na alal afaaqi ci gox ya wattasalal mu jokkaloo busural xawaatifi bégteey mbégleey xaacu ya fii milaadi yi ci juddam alkarami baa ji tedd mu ne yonent bi ba mu juddoo gox yëpp foo dem rek da ngay xaacu di na yonent bi nga xamni ni xal ci ñew mu jël jamono uh-huh. judd na ne ko lu xewat mu ne xarra daanu li mawlidi yi di dem alaw saanu xërëm ya mbolem yi dañu daanu rek bu yonent bi wan baasat mu faq sawaqibu shuhbi bi way leerali bidiw ya tarmidi sanni al jinne jinne ya duru jëmi ci ay waaw jam dégg nga ci manam bidiw yu faq rek la wax de bidiw ya ngay jam jinne ya ndax jinna yi dañ jinne yi dañ laan yëg ci asamaan déglu xibaar ya li nga xam ne moo war a xew suuf bu koy malaaka yi di waxante ñu koy déglu waaye keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddoo waaw biddu bi yaay faq rek dàq jinne yi ne leen mbiram yonent moom du ngeen ci laal dara sallallahu alayhi wasallam nga ne ko ah, lu xewaat mu ne tazalzalat yëngatu na ustuwaanaatul muluki potoy buur ya ka kaabatin comme kaaba ga salaasata ayaami ñetti fan falam taqumi dalut mboolem buur ba rëy rëy poto yaa ngi yëngatu sallallahu alayhi wasallam keroog ba yonent bi juddoo poto buur yëpp a yëngatu wan ne buur yi buur yi ñëw na léegi seen nguur daanu ndax poto moo tee tabax kaaba ga nag moom dafa kontaan ba ñetti fan mu ngay yëngatu mën a da doon fecci sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ju bi juddoo kaaba gi xam ne ne léegi ñu génneel ko xelam yi waaw mu fecci ñetti fan yoo xam ne darut nga ne lu kaaba ga rek mu ne maal ak jëng na ma mii leen ak jëng maal arkaani ànd ponk yi aw sujudal ba sujootal ba sujjóot rek laa wax de tanzima mustawjibi tanzimi ngir màggal ki ñu war a màggal moxtarami kuñ respect nga kaa bëgg dafa yëngatu yëngatu ba mujj sujjóot waaw ngir màggal yonent bi nga xam ne ku ñu war a màggal la sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko lu xewaat ci keroog juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Quraysh amoon nañ am ndab loo xam ne ku judd guddi rek ci dañ ko doon ah. waaw muy ndab lu rëy waaye nag keroog bu yonent juddoo ñu andi ndab la daal di ko këpp ci kawam ndab la dafa xar ñaari xaaj ne man du ma këpp ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wan falaqat toj na fil wiladati ci judug yonent bi aljafnatu waa ndabal qurayshi minu ngir mag ak yonent bi rek laa de way in falaaqu toj googu mu jaabun timtaan la ndax xaw mi fa seen ak nit keroog bañ jëlee seen ndab loolu dëpp ko yonent bi ndab li dafa xar ne mukk du ma pu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nga ne ko lu xew mu ne waqad hawa daanu na surufaatul bayti mm. balcon yi nekk ak waa waa Faris ba wan xadama mabbu naa lii waanu tabaxu Kisra ba toj fukki balcon yi fukki toj tojam ñeent daal di dafa toj wala maa ndox ma mislu naari comme safara sa si mm-hmm. zarami ci dog ah buuri Faris jaaxle ndax gis na ne tabaxam bu dëgër boobu yaakaaroon na ne pencam yàlla rek mooy tax mu waaw am sikk toj na fukki toj tojam ñeent sallallahu alayhi wa seen ndox mi nga xam ne nii waaw moom lañ loon waaw jariñoo daal di ngecci mhm. safara sañ loon jaamu xam ay xam xamukat yoo xam ne nii mosu dakk mhm. keroog boobu safara si dafa fay gamaj te xamukat yaa ngi xamu sallallahu alayhi wa sallam ah mu daal di jaaxal nag si sensé rek attekat bu mag ba daal di ko ñëwal wax ko gént gim géntuñ moo tax wal mu bisaanu attekatu attekat ya mhm. mooy procureur ba noonu la ko yaakaar naa la ko tubaab di waxee raa gis na ala baala gélém ya xaay danañ ñaaji ommat xeelen ay fas iraban yoo xam ne fas yi arab la tajuulu tajuubu ña ngay dagg a dij la doji iraq bil xasami ci lu gaaw mu gis ay gëlëm yu ommat fas yoo xam ne fas yi arab la dugg ci réewi iraq yi mu gént gi jaaxal ko mu laaj abdul masih mu ne ko loolu daal xanaa nga dikkal sa tiix sa tiix daal moo ci man dara sa tiix am nit la woon koo xam ne daanaka amul yàq moom yàpp kese la boo ko bëggee toxal dang koy bërëng lem ko ni ñuy lemoo lemee ab basan rek laa wax de waaye ku yaa bopp la xoon lu mu la mën a wax lu mu la mos a wax du dañ abdul masih nag daal di ñëwal sa tiix mu ne abdul masih abdul masih jaa dégg nga jaa dikkal na sa tiix an sa tiix saa iloo di ko jaaji laaj ko waaw dégg nga mu ji boo mu mu mu ngi aji tontu woo te fekk mu xat aw faa sapp na ala shabami ci dee abdul masih daal di ñëwal sa tiix بام نيوي دال بيتي ييمه يو رافيت ساتيا دال دي كو تونتو خمال كو لي نرا عبد المسيح بام نيوي اسم اسمون ام يسمو غتري فول يمن ام فاد فضل مبي شعون عنن يا فاتر الخطه دي من ومن اتاك شيخ الحي من ال سنن وامه من ال ذئب بن حجل ازرق دنگا يري ونحم النبي ñi di wax mahmu naabi ñi di wax mahwu naabi saraarul uzun abyadu fadfaadu ridaai wal badan rasulu xaylin ajami yasri lil wasan tajubu bil ardu alan daatun shazan لا يهب الرعد رعد ولا ريب الزمن ترفعني وجنا وتهوي به وجن حتى أتى عري الجآجي والقتن تلفه في الريح بوغاء الدمن كأنما حسيس من حدني سكن بيت يلوح mu ne asumun ndax dafa tax am yas moo wala mu ngi dégg xëttiriful yaman sangam yaman ba mu ñëwee fekk ma ngay waaji dee mu ne um, abdul masih ne sitti satti ne teg abdul masih ne waaw sangam yaman bi moom dafa taxam mu ngi dégg am faada wala dee na fas la ma mu yóbbaale bii ci moom cawul anan lefam dee wala dee daf ko yóbbu boog mu tagg ko nag ne yaa fasilal xuttati yow miy aji leeral mbir mi nga xam ne ah yan lottuloona man man ka nga xam ne woo man ak ka nga xam ne maanaam lu te ñëpp yow mi koy leeral ataaka dikkal na cheikhul xayi sëriñ ab gàj ab quartier min aali sanan ci ñooñ sanan foofu la bokk sëriñ boobu moo la ñëwal boobu moo yaaya min aali zib ibnu xajan mu ngi bokk ci ñooñ zib ibnu xajan zibu nag ci li lay firi moo tax mu ne asraqu ku zone bët la mel ni bëti asamaan mm-hmm. dégg nga nax mu naa bi mooy ku fuqale ab ay ay gémmiñ la maanaam ku mën a lekk boo ne mahu wala mahmu naa bi mooy ku ñëw ay bañ la sa raarul uzun ku taxaw ay nopp la te lu gu mel noonu la abyadu ku weex la moom ki la ñëwal fat faatu rida yi ki aji yaatu làmbaay la wal badan ak yaram maanaam dafa tabe <clears throat> bu ñu waxee làmbaayam dafa yaatu mooy dafa tabe ndax tabe dafay suturaale eh, yaramu nit ki ni ko làmbaay di suturaale rasulu xaylil ajannan ajam moo yonentoob waaw mm, buuri ajam ya yasri ma royaat lil wasan ngir xaajoo wala yasri ma ngay royaat lil wasan jëm ci ki nga dafay tëdd rek mel ku gëmantu waaw mooy sa téye mu ne ko man de buuru ajami mooy buuri faris moo ma yónni ngir ab xaajoo te juubu mu ngi dagg bii ci man alaada suuf si alan daatun gëlëm gu dëgër ci san gu sawar laaye rabu du ragal arada dënn wala rey ba zaman du caageen si kab jamono gëlëm gi ma andi gëlëm gu dëgër la gu sawar ragalu dënn yi ragalu si kab jamono tarfaw mu ngi may yëkkati waj naa gëlëm gu nenkateng wa tax wi mu ngi wàcc bii ci man wajan barab bu keke xuru keke hatta ata ba mu dikkal enril ja aaji kaa rafle waaw ay dënn wal xatan ak suufi gannaaw mu ñëwal ma nag ki waa joo xam ne amul dënn amul yaxi gannaaw daanaka yàpp rek la dégg nga talu fuhu nga xam ne dana ko dana ko lëmas firi yi ci ngelaw la bawgaa u dimani waaw suuf yi sën ya nga xam ne bu suuf si yëngatoo rek daanaka xaw na koo lem ka annama xusiisa mu mel ni dañ koo yëngalee min xidnay sakkan ci ñaari doji waaw ci ñaari wàlli doju sakkan rek laa waxee ngelaw li bu yëngatoo mel ni lu jógee ci ñaari wàlli doju sakkan daanaka mën naa yóbbaale waajooju maanaam xam ne dañ koy lëmas rek la bëgg a wax mune ne la ko wax nak sa daal dal diko tontu xamal ko li nga xamné ni waaw mo nar mo moo xew waaw ta dara xewagut mu ne ko ay Abdul Masih inna tilawata nim jàng al qur'an qad baqat qumna wa qad zaharat zaharata al wal al hirawati ka méngoo xet wa mooy borom dokk ba waylal fuusi tos kërë ñeel na waa Faris wa saami ak saam mu ne ko bis bu jàng alquran kumbee borom xet wa feeñ xoonaa tuskare faras faris ak saam ñoom ñëpp danañ ñàkk seen nguur sa yamlikuuna danañ moom yeddun fukk ak ñeent minum ci ñoom ndax yaa fukk la daal ñeent la fukki buur ñeent ñooy falu tolloog fukki toj te ñeent yi fukki buur ñeent moo leen dese moo tax ma ne sa yamlikuuna danañ moom yeddun fukk ak ñeent minum ci ñoom ak xii sama sama mbokk malikan ci buur fukki buur ak ñeent rek ñooy falu mis la sorofaati comme liimu balcon ya lam yaxta jumul minal kalimi ci wax noonu la demee fukki buur ak ñeent gannaaw bañ ko amee ci la ñàkk seen nguur ñoom faaris rek laa wax de ko defee loolu lenn la ci li nga xam ne mooy aji moo aji woon ci judóg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أعزائي نريد الإسلام واستطعت والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته